waaw politique bu yëngu moom loolu moom nekkul lu bees politique moo yëngu waa ànd loolu moom amul dara lu bees luñ ci gis liñ jàpp rek mooy politique moom naka jekk dafa mës di yëngu donc bu yëngoo dafa dellu rek ci aadam loolu moo tax loolu moom euh, li ma jàpp mooy euh, euh, lu jaadu la politique ay nit a koy def ay nit ñu wuute ay gis-gis ay nit ñu wuute ay xalaat ñooy def politique donc heure bu nekk mën nañoo jàpp ne Mouhamed Ndiaye mën naa gis lii keneen mën naa gis safaan loolu mooy politique donc loolu moom du lu bees ci Sénégal te incha allah te du tey lay am te du tey lay yem. politique moom day des toujours di am ay gis-gis yu uute gis li ñuy gis laa waaye yëpp ñu war na ko def rek ci dal ak teggin ak xam ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk loolu rek moo ci ëpp solo donc politique moom moo loolu ñoo am. génn Mimi Touré ci APR noo ko gisee. génn présidente Mimi Touré ci biir APR bon duñ wax génn Mimi Touré parce que Mimi Touré génnagul APR donc mënuñ wax ne génn APR dañuy wax ne mën naa am am na ay jafe wala am na ay gis-gis yoo xam ne fan yi moom la gis waaye loolu li ma ci wax rek incha allah mooy ñi ngi jàpp ne incha daa ñu fexe def le tout ba lépp li nga xam ne mën nañ ko ci pour njaboot gi kon ne nekk benn incha daa ñu ko def. buñ waxagum mairie ñu ne li ngeen di def baax na Medina Baye mais da ngeen war di yëglu par exemple comme remblage biir euh, euh, rue yi ngeen def. da ngeen waroon dem ngeen collaborer ak mairie bi ngeen yëglu am na euh, loolu yéen ñu def li ma ciy tont rek mooy gis nga xool asamaan moom jërul buuxante ki man daal jërul Mouhamed Ndiaye tàggu na ma wala Matar tàggu na ma wala keneen tàggu na ma population bi daal lim soxla du ay wax ku man ca mën a def ñëwal nga def ca ma amul maire amul président amul kenn président Macky Sall mi nga xam ne daf ñuy daf ñuy joyal sax yow ñu sax mënuñoo contrôler ci loolu waxuma laa keneen président sax bu xasee boo joxe ay ordre def ñuy xaar di xool ñu exécuté waxuma laa keneen sagam président moo du siiw comme loolu ku ci nekk tam da ngay gént rek xam nga li man la mën a wax daal mooy ñun weesu nañ fu ñu posé ay acte ci Kaolack di wax ak Paul wala Jean weesu nañ loolu ku bëgg a def ci Kaolack nag ca am lu baax man lu baax ca yéene ko ca man koo def ñëwal nga def loolu laa ci toog séeréer ak waa Kër Sidone ànd ak mbooloo mu ci kanam ko fa nag autorité Kaolack li ma ciy tontu mooy ministre de l' ñëw na Kaolack dox mission Mouhamed Ndiaye aussi mi ngi woon Kaolack di dox mission. <laughs> c'est bon jërë ngeen jëf. ba pare ba pare li ma jàpp mooy euh, li nga Kaolack gi ngeen di wax Kaolack. dëkk la boo xam ne dëkk politique la comme li ñëpp di wax ñi ngi jàpp ne président am na lu fi tàmbali mais am na lu des am na lu des politiquement ci kilifa yi nekk Kaolack am na loo xam ne li ma jàpp mooy euh, Kaolack moom laaj na ay jubbanti laaj na ay jekk-jekkal laaj na itam ay waxtaan parce que politique dafay toll foo xam ne du nekkati affaire yi Mouhamed Ndiaye non affaire bi affaire askan bi la affaire yi nit ñi ànd ak ñun la affaire bi nit ñi topp nit ñi topp la ci nekk ay kilifa nekk fii Kaolack depuis 2013 ñu nekk di liggéey ñooñu itam wax dëgg yàlla dafay jaadu ñu bàyyi leen xel dafay jaadu ñu xam ne ñi ci terrain bi donc Kaolack moom li ma jàpp incha allah laaj na ay réforme laaj na ay waxtaan laaj na ay jubbanti ca loolu incha allah ñu ngi ci xaar président Macky Sall mi nga xam ne mooy yër réew mi di ko saytu xam li xew ci Kaolack ak fu dul Kaolack yëpp amul dara lu ko ëmp ci Kaolack yaakaar naa ne incha allah matukaay yi nga xam ne war nañ koo jël ci Kaolack wala war nañ koo waxtaanee incha allah loolu du tardé ko ciy xaar te allah amul ci benn sikk incha allah ci ne dina ko def dina seet li nga xam ne moom lañ war a jubbanti ci Kaolack ak li nga xam ne moom la Kaolack yeyoo incha allah danañ ko delloo fam nekkoon te loolu incha allah ko ciy xaar te amu ci benn sikk ci incha allah ne dina ko def. ay weer ay weer ay weer gannaaw bopp sëriñ bu ci bopp mairie Kaolack lan la jàngat ci liggéey bi. loolu dama lay bàyyi dama lay bàyyi nga delloo ko Sénégal sénégalais wala wax sénégalais yi wala sax lu gën a jege Kaolack waay. bu ñu nii ngay waxee dafa bi nga non du loolu loolu moom xam nga loolu mënu ko koo wax loolu moom mënuñ koo wax parce que xam nga coordinateur mooy li nga xam ne kordinateur fi mu ëpp mooy bu fekkee ne dem nañ ci ay xew-xew lu mel ni ay élection lu mel ni ay nangam ak nangam. te loolu li ma jàpp incha allah ay at léegi suñ loxo la nekk mais loolu du du du loo xam ne Mouhamed moo ko moom loolu képp ku nekk responsable ci biir parti bi wala ci biir coalition bi rek cër la boo xam ne jotee dañ ci foofu amul benn problème te foofu gisuñ loo xamante ni itam lu war a jubbanti la non non non parce que ñi ngi wax ak nit ñi ñi ngi wax ak responsable yi bu élection amee wala leneen des dañuy daje ñun ñëpp toog wax ku nekk joxe sa xalaat xalaat bañ gis ne mooy jëriñ coalition bi ñu doxal ko kon foofu moom yaakaar naa amul benn problème